Euh, salaamaaleykum mbokki sénégalais yi nekk Brésil euh, communiqué bi mi ngi jóge ci ambassade bu Brésil bi nekk Brasilia muy wax ni carte d'identité yi ñëw na commencé nañuy joxe bi démb ci alterné ji le 19 ñi nga xamante ni dañ ko yàkkamti mën nañu ñëw Brasilia ngir jëli ko ku ci bëgg lu gën a leer mën nga woote ci numéro bii. laajte ndax sa carte d'identité mi ngi foofu wala déet ñu fàttali ko communiqué bi ambassade bu Brésil bu nekk Brasilia ci la jóge jëm ci mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Brésil carte d'identité yi ñëw na tàmbali nañu séddali bi alterné bi ñu paasé le 19 ñi ko yàkkamti mën nañoo ñëw Brasilia balay booba it leerlu leen ci numéro bii ndax seen carte d'identité bokk na ci